Maya man san day kofate, wala ko faté wala man nga bëgg affronter nak ma faté mina la fan yépp bayil di ma balu ak, lu wara am la mëno wax ba am légui nak pour mu jeex yow ya koy jéem lem ba mu ron nga tek na li faté ka. am copain. copain no no am ko fay dé mais yow lan ngay xaar. xéne yow la doon xaar. yow ngay sama copine ñëpp xam ma ak yow ngay sey ak magam jamm lu nga di ko neub muy ñëw sama kër nag di dugg nu mu ko neexee. ba da ngay jaay capable ak coupable maa la gën a capable maa la gën a coupable maay sa ndey maa la jur wala maa fàtte.